amul amul est-ce est-ce que li bis bi yi am euh, diggante taxawu Sénégal ba Barthélémy Diaz Khalifa Sall ak euh, waa waa waa waa Pastef est-ce que les les des Sénégalais ne vous ont pas fait euh, ne vous est-ce que des Sénégalais n'ont pas quelque part tranché le le le différend. waaw mun na nekk parce que boo xoolee la majeure part de population dañu ànd dañu ànd président Ousmane Sonko monsieur le premier ministre. donc mun na am ñu jàpp loolu mais pour man ku ko jàpp da nga juum parce que ñun lépp lu ñu signé woon ak taxaw ak yeewi askan wi si ay charte dañ ko respecté maanaam élection présidentielle dañu waxoon ku nekk dem bay la sa bàyyi amen droit dem dialogue waxtaan te on l'a assumé su fekkee ne moo ñu jural conséquences yi ba mun su ñu defaat ko parce que on a cohérence dañuy. mais est-ce que est-ce que dialogue bi la parce que tamit. Ah. Euh, kon la mooy problème bi kon. foofu la affaire yi commencé Ousmane Sonko et ses et ses et son camp. euh, ils ils ne l'admettent pas y a eu un dialogue entre ñoom ak ah, Macky am na ko wax fii noonu un dialogue boo xam ne qui a permis d'aménager euh, des des passerelles <laughs> ba ñu commencé sax euh, la mission ñoom ak Macky Macky Sall ce qui était impensable dans kañ la voté ji moom kañ la voté ji euh, Ziguinchor dimanche lu ko yóbbu Ziguinchor euh, avion ku ko jox Ousmane Sonko yàgg na dem Ziguinchor ak en avion mais dimanche lu élection kenn du bougé dañuy aay sax ko Dakar comment ça mu génn mu génn dem Ziguinchor. ah lan nga bëgg wax foofu. <laughs> Sénégal yi dofuñu de. c'est-à-dire mais nag dañu ànd ak. non Sénégal yi dofuñu lan nga bëgg wax foofu c'est-à-dire xam nga nit mhm. xel day xalaat. Macky Sall moo nekk plan République Sénégal moo ko nekkoon. jour élection ñu ne kenn du kenn du génn dem beneen région. à partir de minuit la circulation interrégion et est interdite. mu xëy dem dem dimanche vote yi ñëwaat. lu ko may waxtaan bu doon waxtaan dugg bàyyi mu dem hmm. mais ñun dañoo am ngor ñu tëj ñu kaso daf ñu mandat dépôt négocié wu bu négocié woon mandat dépôt bi nii lay demee dañuy génn bu gaaw nekk candidat bu gaaw a gaaw. doo leen toog prison 6 mois. non def nañ prison 3 ans 3 ans lañ def prison. non waaw ma ne non ñoom Ousmane Ousmane Sonko 6 mois la def prison. mandat dépôt. daal déppo mais xale bu ne ko mandat dépôt tey bi ñu ko wooxee waxtaan bu bañoon bu bañ bu nangoon waxtaan bi gën na bu yàgg mais Khalifa góor la il est cohérent sur ses démarches ñun loolu lañ gëm maintenant. donc alors da nga joxe kaawu avion bi. pour diir ko waxtaan moo ko ah, yan yan yan yan indice nga décelé yan fee nga jàpp ne dafay attester ne waxtaan moo indi loolu yëpp. non mais est-ce que. boo nekkee président nga tenir ko tête dina la bàyyi nga génn. nga bàyyi am na ku taxaw fii wax ne waxtaan nañu waaye dañu war a repousser élection yi ñu delluwaat candidats yi seen xaalis bi ñu dépensé campagne bi am na ko wax non. Mm-hmm. voilà cela veut tout dire mais Sénégalais yi ñoo bëgg Ousmane Sonko lu mu def baax na lu mu def noonu la loolu la yàlla moo ko defal loolu lu mu def baax na. dama koy ñaanal yàlla projet bi mu dikk Sénégal yi ba xale yi topp ko yal na ko yàlla may kàttan ak mën-mën mu def ko ba cinq ans yi jeex